palaas bu nekk walla jamono bu nekk ak lañu ca war a wax jamono bi nag fii mu toll dañu toll ci waxtaane jigéen ju baax waxtaane jigéen ju liggéeyal boroomam ba yàlla gërëm ko waxtaane jigéen joo xam ni même boo fekkewul jamonoom jëfam mi ngi fi muy maam jaara buso liggéey liggéey bu rëy ci Sénégal ba mbooleem kuy soxna waxuma la soxna Khadija bintu Xuwaylidin waxuma la Fatimatu bintu Rasul waaye def référence maam jaaro buso rekk en tant jigéen faratala ci yow ndax mbaax ak low ak dëggal borom këram moo tax yàlla fayee ko cheikhul xadim jigéen jooju nag suba mooy anniversaire am bés bi nu koy fàttaliku lan la ñuy fàttaliku ci moom ay jëfum yu baax limaam jaaro bu so nangu ba am cheikhul xadim est-ce que jamonoy tey jigéen ñi danañ ko nangu <laughs> foofu la problème bi nekk maam jaaro buso dafa am benn tàkkusaan maam cheikhul xadim doon sàkket néegam woo maam jaara buso ba mu ñëw mu ne ko téyal ma sàkket bi fii maam jaaro téye sàkket bi cheikhul xadim fatu fàtte na ni am na lu mu téyeloo woon soxna si cheikhul xadim fatu ci tàkkusaan la ko ko téyeloo maam jaara téye ko cheikhul xadim fatu bëxëy ci fajar gi yor satalaam di yeesali njàppam fekk maam jaaro busu ci taw bi mu téye sàkket bi taw bi taw ci kaw mu ne waa kii taxaw du mu ne ko man la kay lay def ci taw bi mu ne ko di démb nga ma jàppaloo woon sàkket bi te ba tey dégguma nga ni bàyyil ma doon topp rek sa ndigal moo tax ma <laughs> allahu akbar jamono bii ñu toll ban jigéen ngay waxuma la sàkket mais portable yii jox ko jigéen ni ko téyel ma ko taxaw ci sedd bi yàgg téléphone bi lay boole mu xoje ca àll ba <laughs> moo tax barke amatul loolu maam jaaro bu sa jëfoon rëy gi mu rëy ci yàlla moo tax yàlla fayee ko cheikhul xadim bu sa xol bii soxorul nga am lenn ci nangu da nga xam ne yàlla may na ko danga xam ni liggéeyal na yàlla waaye itam danga xam ni góoru yàlla la moom sëriñ tuubaa bu dee sa xol nangu na amul daray kiñaan dinga nangul cheikhul xadim li ko yàlla may lu ne wax na ko yonent bi balaa ñoo xam ndax baax nga dangay jur bàyyi fi xoolal njabootu cheikhul xadim xoolal sëriñ Saaliwu Mbàkke ci ragal yàlla geeg modeste gi ak dal gi xoolal sëriñ Murtada Mbàkke ci bëgg alquraanam xoolal sëriñ Abdou Lahad Mbacké ci wilaya gu rëy gi xoolal sëriñ Fallou Mbacké ci martaba geeg ubbeeku geeg ijaaba bi ko sunu moroom sunu boroom mayoon ba lu mu ñaan sunu boroom sunu boroom nangul ko ko am na loo xam ni ku ko liggéey yàlla fay la ko ci sa njaboot. maam jaaro busu bi nu ko muuree di ko yóbbul Mamor Anta Sali dafa dafa jékki-jékki rek onk moom soxna si. ñi mu andalon ni ko lu xew ba jamm la mu ne dama xam ni ben aya alquran ci alquran rek mom lay xalat motax ma onk ñu ne ko ban aya la mu ne yalla nan ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin batu wa mu nabiyyin mu upp sama bobbi ñu ne ko luy lolu mu ne yalla dafa wax ni dootul ñew gannaaw sayyiduna muhammad bu dul woon nag wax bi ko yàlla wax ma mën a waat man maam jaaru buso ni fële ma jëm danaa fa jur yonent allahu akbar <laughs> wax naa ne jur fa yonent de waaye jur na fa koo xam ni bu màggalu tuubaa jotee da nga xam ni boroomam compal na ko <laughs> inna lillahi ibadun ida aradu arada ki jàmmaarloo woon ak tubaab bi ba diine taxaw jàkkaarloog moom tubaab bi ne ko maa moom ndar mu ne ko moomoo ndar ndax avant ngay juddu ndarangi fi won nga juddu fekk fi ndar di nga de bàyyi fi ndar ta du te borom ndar di ndar tubaab bi ne ko kon ku mom ndar mu ne ko kenn rek ko mom qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'u mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi yadika khair innaka ala kulli shay'in khadir tubaab bi ne Serigne Touba bo xamone may kan dag ma ragal ndax rew mi di Sénégal ma ray la Lat ma maa al buri sëriñ Tuubaa ni ko kenn laa ragal latta aqaafu durra xalxin maadama fa wattu amri ila rabbi sama ñu dugal góor gi ci bato bi ne da nga koy génnee yóbbu ko Gabon ci yoon wi la ko waxtu julli fekk mu sànni daram sëgg-siggi jëba taq suuf ne ma xam ne yàlla dong la ma ni wasiqtu bi rabbil arsi zil judi wal afim al mustafa wallahu lii muxlisun safi jàmbaar jooju nag soxna su tedd soosu liggéeyam bu rëy boobu lii la ko yàlla fayee lil Moustapha nawaytu la waxoon moom Cheikhul Khadim maa yu jaddidu sunnatuhul xaraaru wa inni Ahmadu Cheikh Ahmadu Bamba moo tax soxna soosu suba lañu ñu koy fàttaliku yal yàlla gën a yokk ay leeram jigéen ñi roy leen ci mag ñu baax ñi maam jaaro buso mii maam faa wadd wele mii soxna assu jànqe yaayu bàyyi ñës dama ni mag ñii ku leen roy am li am na maam jaaro buso doon sëyee maam faa wadd wele doon ko sëyee soxna astu jànq yaayu baay ñas doon ko sëyee sunu mag ñu baax ñii ni nu doon sëyee jigéen ji ko sëyee am li nu am yàlla yorul benn matériel am ñum koy may am ñu muy bàyyi la mag ña daan def ku ko def am la mag ña amoon la fi newoon ba tey moo fi ne te du fi jóg maa nan sax min ayatin aw nun siyaha nati bi xayrin minha aw misliha yàlla nee na bu ma indee dara ba ngeen koy tagg naan lii dootu fi amati la ma ca denc moo ëpp bi ñëw bu ngeen jaaree fi kii jaar ma indi la ma indi woon soxna soosu li mu liggéeyal yàlla nga xam ni tey foo dem ci àdduna bi ñu ngi koy màggal tey foo dem ci àdduna bi alxemisu tey jii foo dem ci àdduna bi ñu ngi màggal maam jaara busu liggéeyam bu rafet maa ngi juum sax naan suba <laughs> tey jii foo dem ci àdduna bi ñi ngi màggal jaar-jaaru maam jaara buso ci liggéey bi mu liggéeyal yàlla moo tax ni soxna soosu daan sëyee dama ni ku ko sëyee am li soxna si am yàlla yorul woon benn maam jaara buso wala benn maam fawàddu wele jamono nag moo changé li xew léegi kenn xamu ko kenn xamul ci ban jamono la nu nekk jamono boo xam ni ku fëggoon mag ñi nettali leen li fi xew ñu ne du Sénégal ga ma bàyyi woon réew moo xam ni bañante liggéeyante waxante lu bon kenn du avancé ku ne yaa ngi sa morom lu bon yaa ngi nit ñi lu bon nit ñi échec kenn la ku yàlla jiital yaa ngi ko bëgg a faxastal te wax naa ni iñaan daa tardé ndax daa bàyyi ba yàlla dogal mu doog a départ te suñ borom léegi day segere boo iñaanee nit day far ci kooku di ko di ko jox sa xol di bax te doo ci mën dara te nag alxasuudu laa yasuudu jamono bii ñu nekk li xew kenn xamu ko liggéeyante bi motax buma bu ku tok nan galaj amul dama nan yego lu xew mom kay li gëna a wóor mooy gàllaaj jàpp guma waye bul tok mukk ne galaj amul aka am nel jàpp guma mo gëna a wóor wa maa yuallimaani min ahadin xatta yaqula innama naxnu fitnatun fala takfur fa yataallamuuna minhuma yufarriquuna bihi bayna almar'i wa zawji ñi njëkk ñi njëkk a ñi nu njëkk a jox liggéey ñu pratiquer ko binu ko defee ba pare seen imaan dafa naaw pour wax la danger bi ci nekk. moo tax deuxième partie bi ci njabar la ñuy wax ci njabar lañ bëgg a waxtaane ma ni bu nu demee ba liggéey sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam keneen ku dul bi war nga xam ni buñ la liggéeyee jàpp la déggoo ma de dama ni bu ñu liggéeyee Seyduna Muhammad ba mu jàpp ko keneen ku dul yonent bi xam nga ni buñ la fexeele am la saaxibil xawdil mawrut yonent yàlla Muhammad ku ñuy wax labib moo ko liggéey ci teen la